xam nga neen ko gisee tey euh, campagne bi tëj na barka démb tey jii ñëw naa fi pour def sama devoir de citoyen devoir boo xam ne ne vraiment ñu si sant yàlla ñëw naa voté euh, gis ngeen affluence ni mu am si dafa jox nit ñi importance bi ñu jox tey vote bi li ñuy ñaan yàlla rek mooy euh, yàlla na ko yàlla def si jàmm ni ñu ko defee campagne bi ñëpp am jàmm si salaam parce que tey campagne bi ni mu déroulé campagne de programme la woon nous, nous avons beaucoup usé, nous, nous c'est un programme que nous partagé dans les domaines qui sont les collectivités territoriales, l'éducation, santé, culture. te gëm nañ suñu coalition bi nga xam ne ne benn bokk yaakaar la ñaar fukki parti ak ñaar composé ko liggéey bi ñu liggéey si askan bi dem ko si jeunesse bi dem ko si jigéen ñi dem ko ci mag ñi dox ko au kër ci 65 quartiers yi nga xamné ne ñoo composé Rufisque Ouest am nañ yaakaar que dinañ am solo am nañ yaakaar ne ndam li dina ñëw loolu amuñu si benn équivoque surtout que ñi nga xam ne ñoo si gën a dangereux te ñu ak moom mooy sama xarit sama doomu ndey maire bi nga xam ne am na fi ñaar fukki at boo xam ne démb rek maa ngi koy wax préparer pour que tey si guddi mu tellement jox caabi yi pour ñu war a mën a def vraiment changement bi mën a tàmmali liggéey bi waaw loolu moom waxtaan nañ si li si des mooy aussi def nañ aussi euh, suñu tournée départementale leen ko gisee département bi moom mën naa wax ne combat amu fa Ben bi wàllu Sénégal la ben bi Yewwi defena na benen bo xamné un jeune bo xamné ci conseil ça la nékkone mais yaakaaroon né damay dem ville mais jotuma fa dem mu tamali won ci listam ñoñu la ñuy compétiral et sunu bilan plaide vraiment C'est sunu faveur parce que liñu liggéey aussi ci sept ans yi nga xamné ne dénk nañu conseil départemental bi si résultat yi ñu def ak connaissance bi ñu am aussi sur le terrain politique par rapport à position bi benn bokk yaakaar taxawé yaakaar nañ né fofu mom euh, nous sommes archi favoris pour euh, gagner euh, la victoire au soir de ce 23 janvier.